baax kontaan moom di ko ñaanal yàlla suturaal ko may ko ndam lu seddu guy dimanche ndax mérito na ko ndaanaan la ku lu fadli et puis day béggal jaamu yàlla yi xale bu yaru la te man ku ma jox cër yaamu moom te ma maa jox sama cër dama koy ñaanal yàlla may ko ndam lu seddu guy guy guy guy dimanche incha allah nee ko ne comédie daa am fu yem. ci digg xam nga xam nga adversaire bi maam. xam naa ko Ndiaye laax moom it ndaanaan la ku lu fadlem <laughs> cinq tonnes rek ci digg géew cinq tonnes tubaarkaal yàlla ko yàlla ba Ndiaye la li ma koy yéen xam nee naa ko comédie daa am fu yem waaye su duggee ci biir géew bi ful fay day jom say morom nga fi nekkal ñuy bëri di daal ko wax say morom nga fi nekkal ni am sa ngëm-ngëmu bopp te yàlla la yàlla sutura da ngay dem de ci kaw ci na ko doful daa dof moom doful xam na fi ko ndam li mën a yóbbu li mu liggéey ci combat daal li mu fi combat bi yëpp dam na wax dof ci nga xam ne nag tey mooy Ndiaye laax muy le 5 ci diggante Papa Sow ak Siteu 5 a ngi nii presse baa ngi nii ñëpp a ngi nii 5 ana lan ngay wax Ndiaye laax. waaw au di wax ginnaaw bi sant yàlla julli si yonent bi di sant ñaari waajur di wax 5 tonnes moom benn ndaw la bu juddu 1997 sixième mois troisième jour hôpitalu Ndamaatu 23h30 ceci faire di présenter woo loolu di bëggee ñëpp di bëggee waa Géejawaay. di bëgg àdduna ndax cinq 5 tonnes nekkatul 5 tonnes géejawaay. xool 5 tonnes àdduna la. ndax moi si si teefu si si rentré le doon le drapeau géejawaay waxi naan même di bëgg ñëpp daal bonne question di la déglu bu baax. Seck est que xam nga ki ngay bëreel tey di Ndiaye laa xam nga ko. waaw xam nga loolu moom ça ne concerne man li ma concerne mooy li ma liggéey ak samay coach. loolu moo ma concerne ndax man maa fekk jàngoro yëpp ma jël siti comprendre nga kon Sidi samay course xam na li ngay faj ñun ñu ngi siy liggéey boobalee léegi ku ci mel ni Père Bass taayewul quoi vraiment ndax combat bi na 3 ans man 6 millions laa ñàkk barke leeru alxuraan grand combat bi baax di ñaxtu rek mais man maa leen gën a sonn mais daal li ma mën a waxal mooy adversaire la rek comme adversaire yi suñu papa suñu grand la ndax ba muy bëre ñun xalaataguñ bëre ndax ñun saa kees néeg réel sax fekk nduguñ si lambu comprendre nga. Mhm. kon li ñu mën a wax mooy. kon suñu jom ak suñ fula ak tey wane li nga xam ne tey moom la am moom la bëgg moo ñu indi fii ñu nekk yaa ngi dégg di wax combat bi daal metti na trop ba yegg si fii nii kon ay fan a ci des li ma la mën a wax mooy mooy li ma la wax sànq Odobar bi ñu tijji wax ji nee naa la maa fekk jàngoro jël siti kon tey adversaire bi man mënu ma jaaxal ndax suñu igri am na bu ne suñu igri am na bu ne. xam nga tey daan Ndiaye laax fan la la mën a yóbbu ci làmb. bu démb doon tey comme ni ma toll fii nii yàlla xamee du ma bëree moom bu démb doon tey comme fi ma toll nii bi ma koy jël moom dafa ma war a sant yàlla xam na loolu billaahi wallaahi man suñ ma walaajee koy bëri sax damay rusa wax ki may bëreel mais na sant yàlla la ko quoi suñ borom mooy jagleel kenn ko ne li nga war a am. kon tey man maa ko man tur bi ma ko may yéene naa ko ko mais dama koy daan incha allahu rabi bu neexee yàlla suñ borom la 5 ya su gis ni combat jàpp nañ ko mu annulé ñu jàppaat ko mu annulé te ñu jàppaat ko lan ngay wax waaye Géejawaay ak lan ngay wax ak sa koñ ak mobilisation bi. waaw xam nga ab jaam moom sabab lu lay def. ab jaam. waaw maa ngi tuub ab jaam sabab lu rek lay def ndax combat bi li ma la wax bi ñu soog a tijji def na trois ans xam nga li ko yàq ak li si ñun yàlla mooy dogal mooy tracé ay deuxième. salaamaaleykum. insalaam père waaw. <laughs> père si waaw kii mooy Fervé Diop fitir maire wàq nan bin sat waaw est-ce que léegi laaj. 5 tonnes mi nga daa gis. ak may gis nii est-ce benn la. waaw oh! waaw ñu nay jeune lañ je suis jeune y' a pas de film y' a si tu travailles bien y' a pas de tricher on donne de ma laay. adversaire bi mënu ma cee sori. xam waaw. non xam nga question bi dañ ma koy laaj boobu la dugguma si bu ñu jàppale dama ko ragal wax ji. ragalu moo kooku dama ne laax li may wax ak moom xam nga kañ may defaat point de presse pour bu may dem palais mais loolu noonu du discours bi. ay waay déggoo li ma la wax de. parce que Serigne wala déggoo li ma dama ne la 5 tonnes benn ndaw la bu juddu 1997 sixième mois troisième jour hôpitalu Ndamaatu 23h30 laa juddu 30 minutes moo ma teeloon am minuit. waaw dégg combat bi liggéey naa ñi ma ci war a àndal mooy samay course comme li ma la wax ku ñu mel ay Cheikh Thiam ay Boy Thiam xam ay Père Bass ndax ñoo doon ànd dem dîner fépp di sut di nuyu mbër yi nga ñoo nekk suñu écurie ku ci mel ni Marley ku ci mel ni Pape Thiam 2 di ko ñaanal jàmm Pape Thiam 2 di ko ñaanal jàmm ak wér quoi ak sutura ci barke Serigne di sant suñu waay gir yëpp ay ñoom Arsenal. léegi nan lañ mën a xaar ci combat bi door mu daanu la wala jàpp daan. combat bi mënul yàgg lamb xale ak mag la. waaw waaw waaw te géej mu ngi suturaal comme ni ko grand liir waxee léegi rek. comme ni ko grand liir waxee maa ngi koy nuyu maa ngi koy ndax géej ay man da nga war a kon. na ma géejawaay ñaanal rek. waaw mais man li ma décidé man ak li ma gëm barke Serigne Saliou Mbacké. li may isaan li may làmbool musuma koo làmboo sama àdduna. waaw barke Mohamed. ndekki ñaari ndekki di reer ñaari reer. di entraîné ba ko jàppee du ma la bëgg a laaj mooy yow da xam Ndiaye la daan. moom dëgg yaa ngi dugg ci bis bu mag. muy ci diggante Papa Sow ak Siteu nga war a jàmmarloog Ndiaye laax. ñu gis ne Ndiaye laax moomu Papa Sow Siteu moomu nga guddi ñu toll kenn moom jàpp ab laarite xaw la ñu wax bu ñëpp xam la. yow loo def. mu jógee ci defet. waaw li wax dégg nga man dama ne xam tey mooy li ma la wax ma laatal ko ci France pour nga dégg dama ne. quand venir c'est donné les avancées rentrer les cognes c'est les rentrées il est père Pambaye c'est moi quel adversaire ma ne ko moi c'est donne il est réponse c'est donne le Ndiaye la mu ne ma c'est pas lui il est donne rentre avance ma ne ko c'est réponse c'est moi quel père Papa Mbaye ah y a pas de tricher ndax c'est moi c'est donne les je suis jeune c'est gëm sa bopp kon c'est la donne les jàngoro looy wax ci yi waaw nan leen ñu may nan leen ñu may nan leen may may suñu bokk presse ndax Père Védio dafay nekk te kilifa la quoi waaw léegi kon dara waaw Ndiaye laax li ma nga tey abu abu waaw pour ma wax la ko dama ne laax boo déggee ba ne tontu ma si mooy Ndiaye laax prix moo ko fi bàyyi lamb xale ak mag yaa ngi ma war a ma ko liggéey nañ ma ba ma egg si a prouvé kon loolu noonu jarul question bi quoi Ndiaye laax si defet la si lay delluwaat loolu la ñuy répété tey lan lañ mën a xaar ci kaar te gis nañu futur maire taxaw lan la ñu mën xaar ci kaar ak mobilisation bi nga xam ne moom la 5 tonnes waaw xam nga tey 5 tonnes booy wax loolu rek day mel ni. waaw xam nga tey loolu noonu sax dafa am ñoo xam ne dañu koo gérer. yaa ngi dégg lépp a mat lépp a mat. ak billet yi. lépp lépp. waaw ndax tey mooy li ma la wax sànq soo ñu soog nee naa su dee mu doon tey du ma jël njaay laax keneen laa jël ko dul moom ndax li ma am musuma ko am. lamb ji maa nekk seule personne bu Pape Dou Fall du joxe ticket barke leeru alxuraan dañ kaa woo pour mu jox ma ticket te fitir meer dina jënaat ay ticket. waaw mu mel ne mu mel ne ah, cinq tonnes cinq tonnes li la topp ci mbooloo li nga wax moo la topp ci mbooloo est-ce que yow combat bi nii daan war na la ci yow waxi dof ngay wax yow sama noon nga ndax yow question yi ngay laajte question yaa ngi dégg sama waa koñ amul lenn lu ma leen mën a faye lu dul victoire ndax dañoo sonn yaa ngi dégg ñoo jël seeni booli dof man 5 tonnes man boolu dof laay dundee. yaa ngi dégg. fataay 6 ans yooyu nga dégg moo ko dama koy deseeroo mais du sama reer man boolu dof laay dundee barke leeral xuraan mais li ma la mën a wax mooy waa géej waaye mënu ma leen fayal lu du ndam moo tax bi ngay wax ma ne la adversaire bi du kaa suñu écurie am na ku ne. loolu laa bëgg nga xam ko suñu waa écurie ñoo ma gën a bëgg combat bi. waaw kon nag li ma la mën a mooy. day ñëw rek yaru. ku la xool xam ne da ngaa entraîné. ñu daan ko ci fair play. waaw. revanche la. Géejawaay Lamsar. guy gi Siteu Lansar du ma si du ma si wax ndax du raw du rawa sax comme li ko père Bas waxee marle marle na ko réel marle boo dafa mën nekk réel daan ko waaw cinq tonnes kon daan naa na la naa def njaay laax wala déggoo li ma la wala dafa am looy déggee nga teg micro bi suuf nga dégg dama ne la laa law géej waaye man maa ci des leer na te dama koy prouvé njaay laax laa mu neex muy naxari bu neexee yàlla dama koy daan yaa ngi dégg sama tëdd fil dafa daan tëdd filam xaaral meer dama ñëw ràmpale rek. jeex.